si sëñ Muntaxa Bachir moom waa Kaolack la euh, Kaolack moom moom ma ko waxal boppam euh, dëkk bi nag nekkul suñu loxo loxol kilifa yi la ñun dañu koy sàmmloo rek incha allah ñu am fas yéene sàmm ko comme ni ko kilifa yi bëggee sàmm ko ni ko waa dëkk bi bëggee ndax kilifa yi nekk fii muy Touba Ndorong muy Medina Baye muy na Niassène muy keneen nit ñi ñoo tax ñuy sonn ndax mënoon nañoo toog fañ toog bis bu nekk ñu jox leen addiya ñu jëfandikoo ko te duñ génn seen kër luñ sonn rek nit ñee tax kon nag ñooñu buñ ñu sampee ëllëg tamit bëgg ñu ñu defaral leen dëkk bi suñ ci yëgoo ak ñoom am seen ñaan rek liñ bëgg danañ ko waaw soññeen wi askan wi dama leen koy wax. dama leen maire du dara maire mooy la sëñ Abdoulaye waxoon rek mooy xalifa mooy kiñ teg coono yëpp waaye coono yi nañ ko bokk ñun ñëpp rek dëkk bi du dëkkub maire a koy réglé président de la république la koy réglé xalifa général la koy réglé ñëpp a koy réglé nañ jóg ñun ñu leeral nit ñi fan lañ jëm ak ñoom ànd ak ñoom ndax li may wax rek mooy nit ñi mën nañoo ndamoo feetoo ne jox nañ ñu lenge yi ñun waaye ñun nag bala ñoo mun nañ xaar ba leen di delloo lenge yi bu boobaa ñu fexe ba liñ war a def ñu def ko rek incha allah.